waaleykum amateur de foot nuyu dañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant xibaar tey jii 27 octobre 2024 ci wàllu tàggat yaram deuxième vidéo d' abord képp koo xam ne ni abonné go sunu chaîne YouTube bi bu ko tàyyi bësal bouton s'abonner bi ngay liker di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax ci xibaar yi nga xam ne ñu ngi leen koy jox matin midi soir dañuy wax ci match bi nga xam ne démb Lamine Yamal jot na ko def waaye it am ay euh, mbir yu fa jotoon a am ba tax nag Real génn nañ ba réagir ci li ni dinañ ci ñëw benn ber benn te loolee lépp Lamine Yamal moo ko waral moo ko jot a dund foofee ca Real Madrid ak ca quelques u FC Barcelone yu noir yi mu ngi noonu lamin Yamal la Calmao Santiago Bernabéu euh, mu ngi noonu ne Lamine Yamal 17 ans a vraiment fait le geste du Calmao au Bernabéu après être devenu le plus jeune buteur de l'histoire du euh, del Clasico moomee nag Calmao ba Cristiano Ronaldo doon def moom la def ba Santiago Bernabéu provoqué nag supporters yi waaye ba mu leen provoqué la ci fekk moom bëri na trop trop dinañ ci ñëw benn par benn moomee di Lamine Yamal nag génn ba réagir ci li ni mel ci match bi ni nga xam ne noonu la doxalee mu ngi noonu Lamine les joueurs du Real Madrid ne savaient que pas teg ci ay nee na nag joueurs Real Madrid dañoo jàppoon ne moom amul pied ab droite mu ngi noonu ne nous avons euh, nous nous comme le meilleure équipe euh, comme la meilleure équipe ñoom nag dañoo gis ne ne jàpp nañ ne daal ñooy euh, meilleure équipe. bi ci monde bi ñoomee di baax sax waaye ñoom daf moom réseau Real lay kaañ daal ne dañoo jàpp ne ne moom amul pied droit ca pied droit ba moom la dugalee moo fi biyam ca la dugalee biyam boobee mu ngi noonee la tax fatt bi war fàttuñu ko Lamine Yamal il disait euh, combattre euh, des euh, équipes moyennes en Liga ñoom nag dañ doon wax naan dañuy gagné ay équipes yu yamamaay ca Liga espagnole Lamine Yamal mooy wax ba léegi en Liga et quand ne serait pas les mu ngi noonee nee na nag du doon ñoomee nga yu yamamaay yi ca moment yi important yi nga xam dañ leen soxla maintenant on a battu le Real Madrid 4 bi à 0 domicile jamono ji nag gagné nañ Real Madrid 4 bi à 0 ca dëkkam on a prouvé qu'on pouvait n'importe qui wane nañ que ni mën nañoo gagné ku nekk mu ngi noonee Lamine loolu la génn di wax ba tey nag kooke di Lamine Yamal mu ngi noonu sur Instagram mu def calmant bi dugal ko bind ci mission accomplie lanu doon mbëbét am nañ ko waaye toujours Barcelone baax ku ne réagir na génn ba ne tu as sorti ta main droite pour euh, se de euh, salaud loolu lu ko génn wax mu ngi noonu ne Hector Fort ne ko je euh, metre sa ça en fond d'écran dinaa ko def fond d'écran Rafinha ne ko tu es bon ku baax nga je t'aime dama la bëgg Fermin ne ko tu fou yow da dof yow Lamine Yamal loolu ko Fermin Lopez génn di wax Lamine Yamal moomee nag ba tey nag dafa battre ay record yu bëree bëree bëree bëri euh, après ba match bi jot a jàllee contre kooke di Real Madrid Lamine Yamal affiche son appareil dentaire bleu et rouge dans euh, un Bernabéu plein à craquer c'est iconique moomee xam ne Bernabéu dañ ko tëjoon démb mu yëngu neex tegu ci temps waaye Lamine Yamal àndut ak pression ñëw gérer match boobee à l'âge de 17 ans plus marqué pour l'Espagne record boobu baatu na ko plus jeune joueur à marqué à la Liga euh, plus jeune joueur à délivré une passe décisive en Ligue des Champions plus jeune joueur à marqué en Copa del Rey euh, plus jeune joueur euh, de l'histoire de l'euro euh, moomee nga xam ne nag mooy joueur bi gën a doon xale dugal ci es dugal ak Espagne joueur bi gën a doon xale dugal ci Liga espagnole joueur bi gën a doon xale def passe décisive ci Ligue des champions joueur bi gën a doon xale mm, dugal ci Copa coupe coupe coupe du roi bi joueur bi gën a doon xale football ci histoire euro euh, mu ngi noonu le plus jeune joueur de l'histoire d'euro euh, mu ngi noonu joueur de le plus jeune passeur de l'histoire d'euro joueur bi gën a doon xale def passe décisive ci euro bi plus jeune buteur de lors d'un grand tournoi joueur bi gën a doon xale Euh, dugal ci euh, tournoi bu mag a mag a mag mu ngi noonu plus jeune joueur à remporter loro jour bi gën a doon xale dug euh, maanaam dóor bi gën a doon xale jël loolu di coupe d'Europe plus jeune jour bi nga xam ne ne nag moom la ñuy nommé jeune joueur ci Euro moom moo ko jot a jël tamit jour bi gën a doon xale jël li di meilleur jeune joueur joueur Euro plus jeune buteur de l'histoire d'un classico kii gën a doon xale dugal ci classico kooke di Lamine Yamal record yi nga xam ne jot na ko battre un exceptionnel Lamine Yamal nee na c'est une expérience incroyable euh, euh, de l'équipe locale dans le stade de l'adversaire nee na nag dafa neex ci xol dem bay gis say ay supporters a yëngu sax ci supporters jàmbur ci seen dëkk nee na Madrid a bien joué en premier temps bu baax ci premier temps bi et nous n'étions pas a notre niveau nee nag nekk ñu seen niveau ci premier temps nag euh, nous avons remarqué qu'il était fatigué et bon intensifié si intensifier notre jeu nee na nag deuxième mi dañoo gis ne ne Real dañoo sonn ci noonee nag lan gën a yokk seen jeu gën koo yëngal teg ko ci axe ci anime boo xam ne ni c'était quelque chose d'extraordinaire kookee di Lamine Yamal Rafinha nag est l'un des meilleurs joueurs au monde de cette saison ci wàllu bi ak passe décisive son début de saison et et évolution exceptionnelle en chiffres mu ngi noonee 14 mois 14 match 10 buts et 9 passes décisives di Rafinha li nga xam ne jot na ko def ak FC Barcelone mu ngi noonu ak kooke di Brésil la Real Madrid a été signalé hors fois lors de de de leur match contre kooke di FC Barcelone hier soir pour Kylian Mbappé Kylian a été signalé hors à un niveau record de 8 contre FC Barcelone ci Classico le piège de jeu d'Hansi l'a bien ciblé kooku di Kylian Mbappé mën naa ni piège bi nga xam ne Hansi teg na ko ci wàllu ligne bi euh, moom la gënoon a sonal nag 8 hors-jeu moom c'est euh, c'est trop pour un match surtout un match de Classico euh, mu ngi noonee ngeen xamee kon noonu waaye kooku ñu naan ko gars yi Lamine Yamal dafa subir loolee di. ay cri de raciste ci euh, match bi nga xam ne jot na ko football contre kooku Real Madrid lu doon loo xam ne nii euh, métti woon na képp kuy noir moomee nag c'est vrai moom moo provoqué ba mu dugalee dem di célébrer. di leen war na ne moo fi nekk naan calmant mais loolu doonul loo xam ne war na pousser à que yenn supporters yi di saaga ba di ko crier naan ko châle noir mu ngi noonu te kooku moo leen jox loolu di coupe d'Europe bi euh, jox leen ay trophées yu bëree bëri di la di ko euh, saaga ci anime boo xam ne nii c'est quelque chose d'injuste mu ngi noonu naan ko châle noir va à aller au feu rouge et vendre des et vendre ay ay saaga yu bizarre yoo xam ne nii c'est quelque chose boo xam ne nii vraiment c'est inacceptable ci football mondial te lu ñu war a éviter la vraiment je suis pas d'accord malgré kookee di Lamine Yamal provoqué na issue supporter dem di leen calmant yi leen wan ne ne moo fi nekk fii moo fi mën mais loolu yàgg na ci football mais nag nga ko euh, traité de de n'importe quoi sauf ay cri racisme racisme moom dafa war a jeex ci football mondial ba tax nag waa Real Madrid ñoomee génn nan ba communiqué ci li mel def geste de grandeur wan ne ne ñiy def saaga yi ni mel ak cri yi ni mel dañ leen ciblé def enquête ba jàpp leen sanctionné leen ci anime boo xam ne wan leen ne ne football mondial loolee amoo fa place kookee euh, ci euh, wàllu wàllu racisme gi kenn xamut euh, ak yenn jour baax saa yi ñoo xam ne ñëwoon nañ ci côté Lamine Yamal yenn noir yi jot nañ yu jot saaga yi ni mel ak yuuxu raciste yi ni mel euh, di leen traité de sale noir et tout doon loo xam ne nii c'est quelque chose te sale noir boobee moo leen may coupe d'Europe bi vraiment c'est quelque chose boo xam ne euh, je suis pas d'accord je suis pas d'accord malgré Real Madrid c'est une euh, grande équipe c'est un grand club mais teewul vraiment seeni supporters bu ñu deful naka su dul noonu moom c'est à souligner te li gën a neex mooy que euh, joueur équipe Real Madrid moom génn na ba dénoncer li ni mel moomee ak responsabilité loolu vraiment dama koy souligner leeral que ni loolu amul place ci football mondial te lu ñu war a éviter la mu ngi noonee gars yi ma leen xaar ci ngeen ko gisee jàmm ci yéen yoon ci yeneen vidéo